mu ngeen ne Thiénaba nag bu ñu sëlmalee dañuy daal di nekk nekk di kenn ku ne saafonte ci diggante Serigne Pape Mourtada tabarakallahu waaw gis ngeen ko Serigne bi ñoom ñëpp itam ñu ñëw ci bis bu tedd bi nga xam ne dëgg yàlla ñu ngi ziar bu baax a baax di baloonte ak ndeysaan salaamaaleykum sëñ Diop ziar nañ la. dafa mel na yow ndar nga bàyyi ko de. man ñuy wax sa tur. xoolal écran bi bu baax. na euh, nga tudd yow. Ah, Serigne Modou Awa Diop yàkkatil kàddu gi. ah bis bi lan nga ci gis tey. Mhm. Mhm. mais tey sëñ Modou dama gis tey xale yu ndaw yi ndeysaan dañu xaw a ñëw ñëw a ñëw ñëw. war a loolu. Alpha moo ko daan wax. waaw moo daan wax suñu ak suñu Ibrahima moo daan wax da leen yóbbaale xale mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. dëgg la. waaw gis nañ ko suñu mbokk ndar yi ñoom itam fi ñëw ñëpp di saafonte ak sëriñ bi tabaarakallaahu muy lu am solo salaamaaleykum sëñ Khalifa ziar nañ la. waaleykum salaam. waat ngi lay ndokkeel bu baax a baax sekk Mori. waaw ñi ngi la tey bis bi dafa ala daw mel ne Seck Mori. yaa ngi ci Mbadiar TV directement. waaw waaw Seck Seck nan nga gisee bis bi tey. waaw xanaa di am de mhm. ci niñ ko waxee léegi ndax. ndeysaan bisu korite la. Mhm. di bis boo xam ne ci. Mhm. bis yi nga xam ne moom la jullit yi am ci la bokk. tabaarakallaahu dëkk bi nag sañ sa na tey ndeysaan ndeysaan nga xamee ni dëkk yi ñëw nañ mbooloo mi ñëw imaam génn ànd ak ñoom tabaarakallaahu jiitanu def xutba boo xam ne te tout tànk yi ñoo tànk yi ñëpp ñëw nañ fu ne waaye jóge di sëriñ Malika daan wax ni bisub diine mbooloom diine koy sañseel ndeysaan ndeysaan tabaarakallaahu boo xoolee mbooloo mi xam ne tey dëkk bi sañ sawaat na wallaay wallaay dëkk penc bi sañ sawaat wallaay wallaay ndeysaan nam daan demee bi fi sëriñ bi du nekkee dafa yokk dafa mel ni lu yokk kay kan tabaarakala kon kontaan nañ oustaz Madia euh, Mbaye Ndiaye sa taxawaay ci diine ji xam na wallaay wallaay ndeysaan tabaarakala kontaan nañ jëf mooy Alpha ngeen di gis noonu mooy borom Thiès muy savanto tey daal moom xol yëpp kenn tey moom yaakaar naa ne savante bi dafa gën a bari sëñ Abdourahmane moom ngeen di jàkkaar lool noonu topp ci xalifa bi tey muy lu am solo tey bi ñu paree Baye Sawru ñu ngi bu baax a baax seen chef de village wala yàlla nañu yàlla boole baal tey moom moom moom moom yéeme na yéeme na bis bi. imam chef de village. tey yaakaar naa kontaan nga de. Ah, mais dama gis nag tey bi ñu jullee ba pare nit ñi ni ñu ci garab gi moom lu waral loolu. ah xanaa mbooloo mu bees mu bari. <laughs> di saafonte. Ah, waaw balonte ak ñaan yàlla teewe ko yow yaakaar naa ne Baye Alpha fekkee nga julleem ak euh, sëñ Ibrahima ak ñu bëree bare bëri mais tey xale yi ni ñu def tey waa àll bi ni ñu indee seen doom yi moom loo ci yokk. loolu day nañ ko jëmee kanam rek. lay ndeysaan. nañ ko dolli jëmee kanam rek. ndax hmm. euh, mag ñëpp déglu woon na. lay ndeysaan indi seen doom yi. lay ndeysaan ndax bu ëllëgee ñooy toog seen i jotaay. dëgg la jërëjëf Diagne. daa mel ni kii rek mooy tàggkatu rasulillah yi. yow yaay tàggkatu yent yàlla Muhammad. wa tabaarakallaahu yàlla yàlla yokk leer wa mag ñi jiitu woon. waaye yéen tàgg tey mbir mi yéeme na de. waaw sant yàlla. yaa ngi en direct site Mbadiar TV lan ngay wax ci bis bi. waaw baalu ñëpp ak nuyu ñëpp ziyaare ñëpp ndokkeel Serigne Talla ci xutba bu am solo bi mu defal nga xam ni képp koy jullit te dégg ko te bëgg a jëriñu wax dëgg yàlla mën nga cee jëriñu kon ñu ñaanal ko yàlla moom amin yàlla na yàlla fay ko amin ndax it mag ñi mu wuutu nii lañ ko daan defee tabaarakallah mu ànd ak doomam yu baax yi doom jeexale sëñ bi xalifa bi ba léegi pour mu fi mu taxaw sax jóg da koo tënd xale yi di ñëw di seetaan si ñu ndokkeel ñëpp nag waaw ñu ndokkeel ñëpp ziyaare ñëpp ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal ñu jàmm yàlla ko teewee déwén yu bari ñaan télé bi tamit yàlla ko yàlla yokk ba def télé international amiin amiin am am na solo sëñ Cheikh mi tey daal dafa mel ni que bi nu paree ah, gars yi daal dafa mel ni dem ci jàkk sax am na te ndax saafonto bi ndeysaan xam ngeen ne buñ ba pare nag wax dëgg yàlla dañ daan ñëw daal di ñëw rek ci jëm si kar nag daal di jëm fa nga xam ne moo di jullit ay bi ndeysaan wallaay ndeysaan la wolof ne yaram daw na loolu moo am ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam lii i la ñuy ànd ak ñoom wuti nag fi nga xam ne moo di juma juma bi. seen ngeen li commencé jullikaay bi wuti lépp mbooloo la kon nag li nga xam ne moom la mag ñi baax ñi bëggoon te yaakaar naa ne xol sedd na. su ko defee nag ñu daal di dëgmal ci fi nga xam ne rek ñun ñëpp àndandoo juma juma ju mag ji nga xam ne mag ñu baax ñu fi nan daan toog tey mboolem dëkk yi wax dëgg yàlla muy Louga muy fu mënti doon biir Mbawar gi ñoom ñëpp ñi fi teew ànd ak ñun. ñu daan nekk ñëw ci penc mu tedd mi lépp itam muy dëkku maam Ahmadou Ndak Seck dama lim bëggoon tey. njabotam mottali nañ ko dama ne tay yaram dawna na ñi nga xamne yeen ngi setan li alhamdulilahi rabbil alamin li serign bi bëggoon serign mu dikke jóge wu fi rek tabarakallahu kër gi teqali ko wala mbolo mi wañu tay dafa yokku serign ba ngi nonu ngeen diko gis and ak mbay ñay bu mbajar bis bi ni ñaan yalla nu gëna yokku duñ ko jëndee benn fenn dama ne yàgg naa ñëw cinéma lépp ñaar fukki at ak juróom-ñaar kat ba léegi mais tey man li ma fi gis dafa ma jaaxal ndekete doomu aadama yi daal jàmbaar ba xam woon la ginnaaw loolu moo dal maam Ahmadou Ndack Seck ndeysaan ngay ziar bu baax a baax ndeysaan waaw ngi ziar nag suñu xarit ma dikkee ñu leen di ziar bu baax a baax ndeysaan wala def na yaram daw na sekk moori ñu daal di ñëw nag fi nga xam ne moo di soxna yi seen teewaay bu rafet ñu ziar bu baax a baax ndax sëriñ bi dikkee daan na wax ne soxna yi nee na ñu leen jox mbalaan mi ñu wës waaye tey boo ñëwee tey lam bëggoon lépp egsi na ko ah, yaakaar bi bàyyi ko rek njaboot gi teqali ko wala njaboot gi tey lu fi bàyyi woon yokku na ko waaye mbooloom tey mi moo jaaxal doomu aadama bu mës a yàgg a ñëw ci ne ba sa yaram daw la. xam nga ne noo ngi fii ci réew du sëriñ Madicke Seck borom yàlla ne ginnaaw bi ñu jëlee jiitu ñuy dem fële euh, toog ci rënu guy gi isan yal na yàlla yokk seeni leer taab na ci seeni barke fii day dal na xel ndax ñu ñëpp fi la ni mujj ah ñoom ñëpp macha allah. suñu egsee nag ci ron guy gi nga xam ne buñ ne nee ana Dakar ana yoon Baye Demba ñu la ma nga gi ci guy ga guy gaa ngi nii Dakar ga dem na bàyyi fi guy gi waaye itam euh, muy mandarga boo xam ne cene ba ñëpp fi la ñu ñaanal ci réew mi ñaanal bitim réew waaye ñaanal sëriñ bi waaye ñaanal itam kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp kon ñu daan àndandoo rek fii. وبث فيها من كل دابة وتجري الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض سبحان الله لا إله إلا هو يرى ما بين أيديهم وما لا يدركون لا إكراه في الدين يريد أن قال أن يمسك فضل الله تعالى من أبرز التكنولوجيا إلى من ولوكنا وإلى ملائكته يؤمنون إلى غفر لنا قال سمعنا وأعطانا قرآن كما لا يكلف الله نفسا إلا ربنا وارحمنا ولا تعلمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فضلنا وعلى الكبير شهد ان لا اله الا هو ما يملك كل شيء كل امر يجري

لمن سمع القرآن عجبا وقال يحسن الحسنة وتدعو هو الله الذي لا اله الا هو السلام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 yal na yàlla nangu bokk teew na gën a jëkkee ñaanal kilifay diine yi waaye ñoo yu aada yi mën nañoo bokk génn ñaam ndax kenn ku ci nekk fa nga nekk yàlla la fa teg kon ñu mu seytaane jàng faati jàng juróom-ñaari alam nasara falaxi salaatul faati maam ne eggal nga musluwaat saytaane jàng fàttee jul ci yàlla Muhammad jàng fukkul wala waxat ak benn mu jël salaatul fatiha ñuy ñee na ko mag ñii ci ginnaaw jumaa ji saa borom yeesal njëggal ci ñoom taas bi seen barke daraja yonent yàlla nangu yeesal njëggal ci ñoom taas bi seen barke imaam ne bu nu eggalee ñu musluwaat saytaane jàng fàttee jul ci yàlla Muhammad jang juróom-ñaari li fi quraysh fàllaxi naasi salatul fatih ñu ñaan ci dëkk bi ñaan ci réew mi réew mi soxla ñu ñaan bu ci kenn xeeb sa ñaanu bopp bu ci kenn xeeb lu baax la ngay def yalla yalla nangul ni dolli fi jam ci daraja yoon yalla yalla dolli fi jam imam ne ba àggalee ñaanal ñi tawat bokk julli di tawat ci àdduna bi yëpp macha allah fu waay tawate te julit ñu dugal ci biir ñaan ji yéen a wala ci alaaji Ndiassa Sall xam ngeen ni mat juróom benn mi ngi ci jotaay bi mi ngi yombatee sàkku ñaan ci jotaay bi yéen a wala ci sëñ daam mi di macha allah di nit ku baax am na taraani ko fi defoon daaw ñu bàyyi xel macha allah ku mel ni alaaji Aroona kat dafa debes macha allah ñëw na ak njabootam mosu ko manqué ma nga ne toog macha allah Malick bi ñuy wax bi nga ànd ak magam sëriñ Alpha macha allah di magam bokk moom lépp ak El Hadj Talla Guèye ni mu daan ànd ak El Hadj Ndiaga Mbeng noonu lañ ànd ñëw bokk toog macha allah kon sëriñ bi ne ñu ñaanal mbokk yi tawat yëpp yal na ko yàlla nangu ci daraje bi salaam ak Alioune Badara Niang mi nga xam ni moom it maamam yaa ngi fii ci ginnaaw armeer yi allah ah, président directeur société unique moom it mi ngi ci biir mbooloo bi di kenn ci kër macha allah kon sëriñ bi ne bokk jàng faatiha julli ci yonte yàlla Muhammad jàng àllam nasara bu àggee ci fa inna ma'al ko ñetti yoon bu mujj ba. Mhm. macha allah tëjee salaatul faatiha yàlla saafara feebar yi yaram yi feebar yi xol yi ci daraja yonte bi salaam wéral julli yëpp barke yonante bi ñoom ñëpp soxla nañu ñaan. maa ngi metteeg xol yeeg yëpp yal yang yàlla dina waane ci Modou Kane cëcc ne njabootam ngi teew wéral jullit yëpp ba ca tëral kenn yaa moom moom nag loolu muy laaj man di nuyu mu kàlle di nuyu mboolem ku teew tey déglu kaddu ci baatu asalaamualeykum wa ngi di di jéggal di ñaan borom bi jéggal nu jéggal ñu ñëpp jotaay bi toogaay bi mel na nam daa mel rafet na neex naa gis jàpp na ni it xol yi ànd nañu mel nii te rek la yàlla bëgg yal na yàlla nangu suñu ñaan amiin ab julit na wërta noppi di ñaan yàlla saa yu nekk rek daa di ñaan yàlla waaye bis mu mel ni tey jii nag da raw bu kenn fàtte sa jëmmi bopp ci ñaan bu kenn fàtte sa mbokk jullit ci ñaar bu kenn fàtte suñu diggante yàlla ñaar yal na yàlla nangu ñett ñaar yëpp alaaji Njaase Sàll nag ci la ñuy tàmbalee wax ji ndax wax dëgg yàlla tey jii ñuy wax ñëwul sëriñ bi ne tey jii la alaaji Njaase ñëw ndax danaa ñëw di nekk kenn waaye lu bon bon tey ñett ñëw na te kenn ku ci nekk mën na wax ci kaddu wala lu ko ëpp muy jëmm joo xam ni juróom benn fukki at yi mu waree fii yi mu julee fii moom xam nan la topp ci juróom benn fukki ya bu teewoon moom moo koy waxal bopp loolu nag ndimbalal yàlla mu di ko def ba tey jii sant yàlla tax ñëw kon mi ngi toog ak ñun nit lépp lu mu daan def ci baax ci këram tukki mënatu xalima gaa ngay daw lu mu daan génn këram di ko doxi muy lu baax ba mënatu ko xalima gaa ngay daw kon lépp lu am ci teyaabay tey jii moom dina am lu ñu toll yàlla na fi yàgg lool di ko am mënee su ko a fàtte nañ ci ñaar fàtte kenn mënu ko bañ a fàttaliku ci ñaar ndax ci jamonoy Baye Asou Mamadou jamonoy Serigne Madické suñu jamono ji yépp yépp mu daa ñëw di ko ànd ak ñun ak yéeneem di def alalam di te def xalaatam yal na yàlla fay ko yal na yàlla woyofal lool yaramam ba mu teewaat ci suñu biir yàlla dara taw sëriñ baa ngi delluy nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp kenn ku ne fa nga jóge ba ñëw fii ci pàkk bu sell bi bëgg yàlla dong tax moo tax nga ñëw fii bëgg a ànd ak mag moo tax nga ñëw fii bëgg a roy sa wayju moo tax nga ñëw fii yooyu yëpp lu ci nekk am na pay boppam te yàlla am na pay yal na yàlla fay nu ngeen gi pay kenn ku ne fa nga jóge ba ñëw ci barab bi meetar yi kilomètres yi diggante yi lépp yal na yàlla def ko njëgal ak yëkkati ak màttam te yàlla ci barab yi yàlla Muhammad yàlla sañ na ko mën na ko am na ko dem na moom yàlla boo xam ne ñu ñuy dëkk ci dëkk di jëlee ci jàkk ji ku gën a sori yaa ëpp tiyaa waaye ku gën a sori mujj bi moo ñu ëpp kay yàlla lu tax ñu ko ñëw am na loo fay ñàkk yàlla fay ñu ko lii lu rëy la yaakaar nañ te yaakaar ku dul yàlla yaakaar yàlla te man ya moo xam moo tax ngeen ñëw yàlla nag kenn du ko yaakaar sa yaakaar bi tax alhamdulilah jërëjëf jëf doon fàttali rek ñu doon lee góorgóorlu bis bu nekk bëgg ko nit yendu wala mu fanaan te deful lu ko wóor lii aw yiw la ko yàlla aw yiw ko def yàlla koy nangu yàlla ko jël xanaa kay dalay fay jël wala mu fay fukk wala mu fay juróom-ñetti waaye faw boo ci ko ku def yiw jox ko muy benn yiw mu ne lii de am naa ko xaaral ma woon ko de ko bari la naa ko dolli ca juróom-ñeent muy fukk bu tuutee ba tuut noonu la koy def nga def safaan mu ne xaar leen ba xam lu mati saa ba xam moom dina ko tuubam déet bu ko tuubee ñu faxas bu ko fàttee tuub ñu tegal ko fa benn no yàlla ne ah lii nag moom daa bon aw ko waaye kon naa ko fi tegal moom mi ko def bu mu ñëw amul luñ ci yokk kon bi ngeen defee lu baax ba noppi na ngeen rafet jot nanu rafet jot xam ni yàlla dina nangu ñu góorgóorlu nit bu xëyee suba ba ngoon noo dem dootul del si mukk noo ko duggit dootul duur di génn du dugaat bu paase te jaamu ci yàlla moom perte na taam duna wax ni nit diir bi muy dund nooyi bu ma nooyi te jaamu ci yàlla daa mel ni ku yor xaalis te fu mu jéggi ab du ñu wadd wala ñaar téeméer wadd bu ci jaamul yàlla noonu la mel bu ca moyee yàlla day mel na xaalis ba duñ ko ruyal di ko sotti ci noppam mu doon beteex kon noonu la mooy yàlla mel kon mooy yàlla noonu la mel waaye nooy gi nga nooy jaamu ci yàlla yàlla dong moo xam pay nga nam ko mbokk yi ñu doon góorgóorlu bu baax li ñuy gàllankoor ci suñuy diggante lay doon li muy avancé ci suñuy diggante lay doon li ñooy gàllankoor rek ni ñooy gàllankoorante waaye ñooy dimbalante booy saraxe ni am yàlla jox ki nga jox jàpp ni yàllaa ko jox yow mi ko joxe jàpp ni yàllaa ko jox yàlla moom dong la am yàlla jox la ana yàlla yow kon yàlla li muy def ci jaam yi la koy jaarale déggoo ñuy wax ni ndaw lii tax mu avance ci xind fu la koy jële xind ko toog ba yàgg rek nga bett mag teral mu daal di mu daal di xinni xulli ay bëtam xoolaat loolu mooy xinni ma yow doom foo dëkk doon te xamul la fu mu jaar laaj la foo dëkk sa affaire baax sa mu xindi ko la ne ne yow ma yow doom foo dëkk ah ñaari baat yee bokk de waaye la ca xol paj yi lu nu bokk kon xol mooy dëkk ñaari baat yee bokk xindi ko ma doom foo dëkk ki nga dimbali dina ko wax ki nga toroxali dina ko wax waaye la ca xol ya ñoo bokk moo lay gàllankoor mbaa mu dimbali mag moo xamul fu mu jógee di mag mu baax wala benn nga xam ba teral mu ñaanal yàlla boobu ñaan kenn mënu ci dara kon ñi dàq teralaat na leen xool waaye ñi dàq def safaani yàlla mu am ci ñun waaye na leen seetlu rek du nu nuróo mukk ba ba cëg mucc bu dee ndaw ba ba muy nekk mag du nuróo mukk kon yàlla yàlla doon suñu ndimbal bu nu xoolee suñu biir dinañ gis mag ñi nga xam ne dinoo nanguloon mag di daw di dem ak ñëw di dox di dikk ba tey da nga dégg ñoo xam ne dinoo lànkaloon mag ñi melu woon noonu egsi wuñu fii kon nan sant bu baax tey woy ci ndigal ah góor alaaji Taala Jaay chef de village mi toog mën na noo de jël ci moom misaal daw kër yi mu daan dawal mag ñi ba toog ni tey sunu papa bi mu jógee looyal ca daara ja ñëw fii bàyyi fa walisam ak takkusaan la ko ni sama walisoo moom wii mu leeral raay bi daw ba ndar ba looyal wa walisoo dawaat ñëw indil sama papa ca jant bi suuf

bi ma jógee daara ñëw ñëw dama koo laajte ñu ne ma ah kooku faatu na bu yàgg ma ne ah faatu boobu mënut a ñàkk de faatu bu mot lay doon nag te loolu doy waar la defoon ma koy xam ma fekk ko kon nanu góorgóorlu bu ne ah nanu wet mag ñi xam fi ni teg seen tànk wet mag ñi jox leen cër yi leen yàlla jox muy mag xam fi ñuy teg seen i tànk ku ko ci mel de ku ko ci mel foo dem foo dem di nga am dara di nga xam dara ku ñu melul doo am dara doo xam dara doo mën dara diggante mag ñi génn leen diggante mag ñi li ngeen ci génn diggante kilifa yi génn leen diggante seen morom yi génn leen sa diggante ak sa morom kenn ku ne sa diggante sa morom def ca lu rafet def ca lu rafet wax ca lu baax sa diggante sa mag def ca lu rafet wax ca lu baax sa diggante ak sa sëriñ def ca lu rafet wax ca lu baax diggante mag ñi dëkk beeg magam ak morom def ci lu rafet wax ci lu baax mooy jur njëriñ lu baax waaye dajaloo lu kenn dem kenn tudd ku ne wax ca lu bopp kenn ku nekk am lu moom rek nanu seetaat fi ñuy jaar bu ne du tee baax gune du tee bëgg lu baax du tee def lu baax magit du nagu magit du nagu ci baax def lu baax def lu baax ba naagu ba naagu day tax nga bayyi ko wala nga daaw moy li ma wax legi ci julli kay bi ku def lu baax fatte waye bo defé defee bu mu jog ci sax xel ndax nga man ko tuub pap mi am mi amna fi gam barki dem mu jambat ko bokko mu jàmbat ko boppam loo xam ne loo xam ne fu mu nekk fu mu nekk xelam da cay ne amoon naa fi man mi gan gu mel noonu mu ne ma daal su ma kàbbaree julli sama xel dem ca ba may ndaw laa ko defoon man daal defe naa ne yàlla du ma jéggal ma ne ko a kay ñu indi ko ci buntu baabu bii def ci li mag ñi wax wàcceel koy bakkaaram def ci li yàlla wax te mag ñi daan ko def fii ñu defal ko ku def lu bon noonu ngay def bu mu jóg sa xel mooy tax nga jéggul ko yàlla waaye def lu man ba noppi ne fanax fàtte fàttal yàlla baax na ah wax nga dëgg yàlla baax na waaye baaxu yàlla yi yow baaxoo ci baaxul ci baaxu yàlla gi baaxoo ci góor góor yow da ngay lépp lu bon lépp lu bon lépp luy safar nga fexe koo falam te bu mu amat lépp luy lu baax nga fexe caa sax nga fexe caa sax di ko jëf faw loolu mooy indi njëriñ yàlla yàlla boole ndimbal ab dëkk daal wala réew bu gune yi wegee mag ñi mag ñi yërëm gune yi jàmm na bay waaye bu mag bu gune wegul waaye gune bu wegul mag ah mag it du yërëm gune mag it wax dëgg yàlla bu ko gune wegul du ko mën a yërëm déedéet du ko mën da nga koy tàllale loxo mbaa nga jox ko dara ni ko ñaanal mu soog a ñaan waaye joxoo ko dara di ko gàllankoor dafa ni day ñaan wala muy ñaan lu baax déedéet du ko def am na nag ñu baax ñu yàlla baax ñu man loolu waaye yàlla may séddale mooy xam cër bi ñàkk mu jox leen te yow bokkut kon nañ ci jéem a fi silmi kaafatan ñu ngi nuyu ñëpp di seet ñëpp di bala ak ñëpp di jaajëfal nag rajo yi Mbaye Ndiaye ma jaay yàgg fi ñëw xam naa ne moom mooy alaaji Ndiaye Sall mu ndaw rek ndax bi fi commencé ñëw di indi rajo xamewul tabaski xamewul kore te ku ne tabaski yaa ngi sa kër rey sam xar moo du fay wii rajoy KMR ñëpp képp si macha allah noonu lañ ko daan defee képp si FM Nasrullah FM Daara FM ñëpp ñu ngi jàpp ci événement yi jàpp ci xew-xew di ci góorgóorlu yàlla yàlla yàlla yàlla yokk yàlla na am doole. fayu courant yomb yàlla na leen fayu courant yomb. ñu yóbbu seen kër yàlla leen yóbbu. yombalal jaamu yal na yàlla yombalal jaamu yàlla lépp lu ñu def yal na yàlla nangu dafa leen ko teew yaatal seen wërsëg lool ndax buñ koy def di ci am dara dinañ ci mën a yàgg a waaye buñ ci mënta am dara dinañ wuti dara feneen te fii ñu koy wute amal nañu njëriñ ndax suñu kaddu gi lu néew néew lu gàtt gàtt buñ ci génne seen loxo ci guy gi rek la yem buñ faxee faxas mu dem waaye ñooñu koy téye séddale ko tasaare ko dencal ko yàlla yàlla fay na jërë ngeen jëf sant nan bu baax sëñ xalifaa ngi nii ah sëñ xalifaa ngi nii sëñ Pape Mourtala ngi nii ak mag ñi suñu xel gudd waaye lu ñu fàtte ñoom am na ndigal fàttali ko salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëriñ Imaam mi leen di fàttali bisam Baye Abdoul Aziz bi le 2 juin le 2 juin bii di ñëw mooy bisu Baye Abdoul Aziz bi imaam akbar nii di taxawal ak njaboot bi ñaar fukki fan ak juróom ci digg tëbës masha Allah bilaal taala mi ngi yëgle tuuru famille tuuru famille nag masha Allah julli yëpp ci lañ ko ndax julli yëpp famille la le 27 bii ñu nekk fii la koy defee insha Allah fii la famille bi daje fas yéene ñaanal te yàlla le 14 décembre lay doon 14 décembre gàmmu ca Naba Kajoor ñu bàyyi ci xel xam ngeen ne mois de février lay doon macha mu gënee ci gis ñu xool premier samedi ba lay doon wala ñaareelu samedi gàmmu Serigne Djibril Seck le gàmmu Serigne Djibril Seck muy Serigne Ibrahima Seck ca yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm ci daraja yonent bi alayhi salaam kon daal imaam daaneel na bu nekk le premier nekk le 10. def naa le 10 jamono bi nag imaam mi ngi ñaan gis ngeen ko macha allah amin amin amin kon daal mbokk mooy li leen korité bi. Euh, tombeek tabaarakallaahu le 10 avril 2024 gis ngeen mi ngi noonu rek xanaa dañ daal dem nag saafonte ak kilifa kër ga nun ko baaxoo def at mu ne kon imaam a ngi noonu di génn li dafa neex kan tey képp koo xam ne nga cene ba Kajoor rek sa xol ak sa xalaat gis nga fi loo xam ne si lu daw sa yaram ci tout tànk yi yi nga xam ne ànd nañu ak mag ñi ni ko sunu maam yu baax yi bëggee woon. nii rek la ànd ak sëriñ bi nag ba dugg ci biir kër gi. biñ ñëwee ci kër gi nag ñu leen ko àndee ak ñoom ci ay sikkar yu am solo. salaamaaleykum Baye Baba ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay bu baax ngay mag moo xam ne yàgg nañ la fi fekk ca jamono yi sunu maam alfay ak Baye ma dikkee ak euh, tabaarakala suñu papa waaye Baye tey dëkk bi ni mu mel ndax mas na nee mel ci mbooloo. waaw mas na nee mel waaye nag gëj na. ndax nit yi dañoo am beneen pas-pas. ndeysaan bu dolli ba ñu amoon. dëgg la ba mag ñuy dund. Mhm. ndax seen xel dafa dellu si. Mhm. ndax seen xel dafa daj. Mhm. nit nag bu xelam dajee. faw mu am na mu mel. dëgg la ñu gis xel daj na. ni ñu defoon ni yi defoon ak mag ñi ci wote bi. waaw noonu la jullit yi def tey ci jullit kanam. noonu la ka xale yi def tey ci kër sëñ. sëñ Madické Seck kër sëñ Madické. Mhm. nga xamante ni. moo moo moo nooyal yoon wi. moo defar dëkk bi. moo melal nii dëkk bi. Mhm. moom sëñ Madické. Mhm. ndax kon daal yaakaar naa ne tey euh, képp koo xam ne ñëw nga fii. tuuti tànk yi gis nga ni ngi leen gisee ñu bàyyi ko ci biir Mbawor wala Louga wala Dakar wala fu mënti doon. fépp la ñu Mbawor kon la Baye Madické mosoon a wax ne bu ñu sañoon ndaw ñi ñëw dafa mel ne tey moom moo ñëw. ci moom la ñu def moom ndaw ñëw nañu. Mhm. ndax ku bëgg sa sa doom aw fa ngay aw. Mhm. boo fay aw da nga ko fay jaarale. Mhm. noonu la mag ñi daan def. fàttali sa tur yow. man mooy Baba Seck. dëkk fan. dëkk xarandak. juddoo fii nag ci Thiénaba. ndeysaan. at mi saa bàyyi ko xara ñëw Thiénaba waaw ci at moomu laa judd fii ci Thiénaba moomu at moomu laa judd fii ci Thiénaba papa nu mu tuddoon Mbay Seck Mbay Seck Mbay Mariama Thiam la tuddoon ndeysaan Amina Niass ko jur mhm. Marie Marlène mhm. Demba Jigéen mhm. Kujja Thiam Siini Sey a Bey dëkk ci Njàmbur ndeysaan kooku mooy sama baay mooy sa baay waaw man nag yëmb yëmb Seck mooy sama yaay ndeysaan yëmb Seck Demba Sëli ko jur Demba Sëli Ndumbe Thiam sayor ma ca guy gaal ndeysaan man lan moo la boole kon Thiénaba. ah lan moo boole Thiénaba. ba na nga tëjee أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بيني وقرأنا لها استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقتل وقرأنا لها الصلاة الفاتحة يقتل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 junni ak juróom-benn tamit ñu ni man nga def junni ak lu teg ñu ne ci diggante maanaam junni bu mate ba pare loo teg loo ci teg rek te weesu juróom-benn tamit daal nekk benn nekk téeméer nekk ñetti téeméer waaw junni moom day mat ba pare junni juróom-benn téeméer dégg nga ma nekk nekk nekk nekk ba war a tëj fekk yow dong nga daal di commencé waat jàngat Fatiha ba mu jeex astaghfirullah trois fois di ñëwati salaatul faatiha da ngay indi ñetti yoon. ba pare nga ne inna allaha wa malaikatahu waaw loolu la ñuy xam ne maa la ko yónnee dégg nga. maa ngi ciy dégg nga maa ngi yàgg dégg nga. incha allah waaw parce que loolu yàgg ba léegi ñu yokk dañ cant bi solo bi dégg nga. loolu yàgg ba léegi ñu yokk dañ cant bi solo bi. waaw léegi nag magam jox nañ la ko te duñ solo bi léegi balay waar. waaw obligation la. wërsëg bi nag boo dee yaay xool ba am su ko defee ñu ngi def ay ay liggéey waaye guddi gi nag moo gën a yaatu. moo gën moo ñëw nag guddi gi laay def. incha allah waaw loolu la ko yëgee dégg nga. waaw ci góorgóorlu bu baax a baax. du dara incha allah yàlla boo ko commencé ba dama yàgg rek. waaw ba tàmm ko da ngay xam ni moom macha allah. incha allah maanaam sax lii de ëpp na ëpp na yéen. yàlla na ci yàlla dafa def temps yëpp. donc liggéey bi yàgg na lool. nangu. di leen dund ba amul njaboot. liggéey ah. ñu leen defal ñu defal ci seen njaboot. Ah. am nañu ko loolu. yokk sa fan. yokk la bu wér. barke ba. sa ba ñu yoroon. yàlla jox na ko. ba sa barke ma li nga xam ne moom boole moom. wala ak wasila ñu ñaan yàlla gën koo dëgëral ndax yaakaar naa suñu maam ba ñu naan def sa maam bi di jiyaat ba nëgëm mm-hmm. wala sa maam ak ak sa maam mu ma ci wala bañ ci arab xëy na gore naa waaye am na lu ma ci fekkee ko la rek waajur ak sama waajur fañ jaar yëpp mm-hmm. loolu moo wàcc ba jëm ni te loolu lañ fas yéene ñu tam continuer ci jamono bi ilaa yi di loolu lañ fas yéene loolu lañ ñu léegi ma xamal naa leen ko léegi fu ma jógee moom ñu ko jox waaw ñu gisoo bu ma leen tee kenn soo ma ñaan sax ñun ah man kay naan ma kii dama tomb loo xamul koo ne toogal ma ne dama bëgg a xam yàlla jubale leen ak seen i kilifa lan la ko yàlla astafirullah astafirullah إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط مستقيم صراط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي خرجنا به من كل دخلنا به في سلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله Karena ya apa lagi apa lah. gis ngeen waxtaan wu ñu Cheikh ak ki nga xam ne rek moo di Khalifa Ndiaye jóge fii fekkee woo njabootu kër Baye si la te ku tudd xam nga man maa ngi ci biir ndax Baye Ablaye sama baay bopp waaye eh, tabarakallah ma di ki mi sama xarit sama wëlëri di ku baax na ñëpp kontaan nañ naa ne macha allah ñoom Pape Diop sama yaay dafa Diop maire ci kër gi yëpp ñoom wax dëgg yàlla ñu seetaane lii ñu xam ne ni yàlla rek mooy buur waaye eh, bëgg sëñ Madické kenn du ko def di ko réccu Baye Ablaye Sylla yàlla na fi yàgg gën a yàgg te wér ñu ñaanale Baye Ndiaye Sall gis ngeen ko ñëpp teew fi ñu jërë ngeen jëf mu ànd ak ci programme